ak réew mi di Sénégal ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax di rafetlu ànd gooy ànd ak uh, Touba Argentine TV di jëfal bu baax seex sàmm bi nga xam ne moo ñu nekkal ci wàllum caméra bi ci présentation bi ci kàddu gi seen mbokk Arona Cissé di jaajëfal bu baax suñu naataangoo Alaaji Góora uh, Seck bu baax a baax su ngeen gisee jataay bi nag nga xam ne bis ba daan ñëw uh, bis ba daan agsi agseeti na muy bis boo xam ne Euh, waa kër ma Massamba Diop Sam ñoom ñoo koy amal ma Massamba Diop saam nag kenn ku nekk xam na ne ci mag ñi nga xam ne ñoo woon ak Serigne Touba Cheikh Ahmadoul Khadim Khadim Rasoul dina leer ci biir waxtaan wi di ziare bu baax ki nga xam ne moo di ab xalifaam di Serigne Abdourahim Diop mi nga xam ne tey moo fi toog toogaayu Serigne Massamba Diop Sam di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu gën ko fee yàggal lool ñu ngi nii toog ak njaboot gi ndax xam ngeen ne le 13 euh, janvier bii ñu jëm ci Daaru Sam incha allah. ziar général bu mag boo xam ne daa daaira bii di daa euh, daaira daairatu mubaarak li xidmati ma Massamba Diop Sam ñoom ñoo koy amal ci kanamu euh, sëriñ bi ak mboolem njabootug sëriñ Massamba Diop Sam gi ak mboolem taalibe yi foofu ci Daaru Sam war a yamook le 13 ñi ngi toogal nag ki nga xam ne euh, moom mooy président wu fédération bi di sëriñ Sam Diop. di doomu sëriñ Abdourahim Diop mii di xalifa bi nga xam ne moom moo jiite eh, fédération de eh, lu mat eh, téeméeri daayira ak fukk yoo xam ne ñu ngi boot ci biir fédération boobu yi waaye ñi ngi toog ak sëriñ naa Diop mi nga xam ne tamit moom mooy coordonnateur bi moom tamit ñi ngi toog ak moom ak ki nga xam ne mooy sëriñ Abdou Lahat Diop di secrétaire général bi moom tamit ñi ngi toog ak moom ak adjoint secrétaire bi nga xam ne mooy sëriñ Djili Diop moom sëñ Thierno. moom tamit ñi ngi toog ak moom ci biir jotaay bi it euh, Serigne Abdou euh, Rahman lay moom tamit euh, mi ngi assisté li nga xam moo di jotaay bi kon su ko du ñu guddal incha allah loolu moo fa war a nekk sababu waxtaan wi waaye nag du ñu waxtaan ci Daaru Saam ak li bis bi li sababu bis bi ki waral bis bi it mooy Serigne Massamba Diop Saam incha allahu taala dañuy jox ki nga xam ne mooy Serigne Saam Diop. su ko defee rek mu tijjul ñu ci ki nga xam ne mooy Serigne Massamba Diop Sam daal ci tënk rek xam nañ ne xajut ci jataay bi waaye incha allah ay kàddu yu barkeelu rek ci kan mooy sëriñ Serigne Massamba Diop Sam kon Serigne euh, Sam Diop moom Serigne Abdourahim Diop asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu leen di sant bu baax a baax di ñaan itam suñu kàddu yëpp fekk leen ci jàmm ak salaam di leen balax te di jërëjëf ni nga ko waxee rek la euh, sëñ Massamba Diop moom. dafa nekkan kenn ci Serigne Touba ndax eh, seenub ànd dafa yàgg lool ba daanaka ñoom jamono yi ñuy ànd boobu li ñuy wax yoonu murid taxawagul xam nga kon loolu mel na ni seenub ànd yàgg na ndax jamono yi ñuy ànde pataar ba ya ca xew yépp nettali nan ko ay yoonu yoon boobu yoonu murid xewagul taxawagul ba ba ba yàlla dogal loola itam moo taxe nu nu nu sababan eh, lii nga xay ne mooy siyaar sëñ ma Massamba Diop Samb bi sëñ bi nag dafa nekkan ku yàgg nag eh, sëñ sëñ sëñ bu mag bi ndax eh, ànd na njéeréem ba yu bare bari xew ca ba ni ko maam Thierno yabale deru Sam mu taxawu ko yooyu yëpp yëpp xam naa jotaay bi mooy xat waaye daal wax dëgg yàlla tubarkàlla am nañ ci ay kii yu bare bari yoo xam ne bu nu ko jotaay bi laaj rek incha des na ko jotal ni mu gën a yaatoo incha allah. Uh-huh. jërëjëf. jërëjëf ci tënk rek euh, kon mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo seetaan seen site internet bi di Touba Argentine TV euh, kon kooku mooy Serigne Sam Diop loolu la ñu doon dënkal rek ci ki nga xam ne moom mooy. Euh, Serigne Massamba Diop Sam yow yaay président wu fédération bi nga xam ne mooy fédération wu daairatu Moubarak li xidmati ma Massamba Diop Sam ngeen fas yéene jóg liggéeyal ki nga xam ne mooy Serigne Massamba Diop Sam su ko defee rek kon euh, fédération boobu ñu ngi waajal ziar général bu mag boo xam ne la treize la war a doon su ko defee kon en tant que euh, président di ñu ñëwaatal ci li nga xam ne rek mooy sababu dooru liggéey boobu nga xam ne mooy daayira bu mag waaw xam naa liñ ci eh, wax rek dañuy tënk jox ko sëñ Cheikhouna Diop mi nga xam ne moo yore wàllu coordonnateur u daayira bi ndax eh, sabab bi nu ngi ko sam nu ngi ko nu ko commencé woon ci 1997 ci teewaayu sëñ Abdou Samad Diop boobu moo nekkan xalifa bi waaye nu ngi ko njëkk a màggal itam 1998 boobu itam li waraloon sababu eh, màggal gi mooy ñun sët yi ñoo ñoo taxawoon. àndan dem ci sëñ Abdou Samad xamal ko ni ko nun daal dañoo amoon yéene bu fekkee am nañ ci ndigal nu wut bis boo xamee ne dañ koy jagleel sunu maam sëñ Massamba Diop defal ko ak cant maanaam dem Daaru Samb yéen doo ko faa jàngal alxuraan ak xasida booba jamono sax mboolem ñi nga xam ni sëtti sëñ Massamba Diop lan kenn ku ci ne sasan lan la nga nga sasoo ci yow fanweeri kaamil yoo xamante ni si da koy jàngal sëñ Massamba Diop mooy ku sëtu ci kër sëñ bi rek loolu sasoo woon na ko. loolu itam tax na bi ñu demee ba nga xamee ni doxal nañ ko ay at. ci leen demee ci sëñ Amsatou mu xamal ni nu euh, léegi bu leen ko tuddati ak cant nan ko def siyaare ndax sëriñ Touba moo digle woon fa njéeréem ni digal naa képp ku ma yaakaar nga dem Daaru Sam siyaare ci sëñ Massamba Diop comme yàlla dogal na nag bis bi leen ngeen ko sëñ Massamba Diop def ko ak cant da ngeen di bàyyi cant gi def ko ab siyaare loola yi mooy sababu siyaar bi waaw jërëjëf loolu mooy sababu li nga xam ne moom moo di euh, ziar bi kon danañu dellu siwaat euh, ci yow ci incha allah ci euh, njeexantalu waxtaan wi su ko defee kon dañuy ànd ak ki nga xam ne mooy Serigne Cheikhouna Diop mi nga xam ne moom mooy cordinateur coordonnateur Serigne Cheikhouna yow yaay coordonnateur bi su ko defee kon mm, bëggoon nañu xam. daayira bi programme bi nga xam ne incha allah fas yéene na ko amal euh, foofe nga xam mooy ci Daaru Saam la treize ji ñu jëm incha allah programme bi naka la fas yéene tëddee. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. programme bi moom mm, mooy niñ ko sose woon rek comme sëñ Sam wax lu la doon wundu dëgg dëgg mooy ñaanal suñu maam ak sant ko moom lañ noonu daje ndax it Daaru Saam dafa nekkoon jamono bu yàgg boo xam ne kenn dewu fa dem ñu bari ci taalibe xamuñu ko woon. ba loolu xamee ba loolu amee ñu ni daal léegi nan dajaloo def ñaan def ni bis boo xam ne dañ ko jagle sëñ Samba Diop comme ni ko sëñ sëñ Samba waxee looloo taxoon ñu jublu woon la dem ci sëñ Samat waaye nag boobu ba tey ñu ngi ci loolu la ñu li doon programme naka jekk moom bu njëkk moom benn bis la doon doon waaye léegi nag day doon ñaari bis ndax la douze bi la ñuy tool door la ñuy woote njàng mi mhm. muy muy conférence bi mhm. bu ko defee conférence bi da da teguñu tam tagg suñu rek dañuy def conférence boo xam ne si dañuy jàng suñ dañuy jàngal suñu diine woo mbooloo mi teg leen ci yoonu siraatal mustaqim loolu lañ jublu moo tax ñu jël borom xam bu am xam-xam lool te ko muy sëñ Mbàkke Abdourahmane mu dew yore mu ñëw yore conférence boobu ak suñu mbokki mbosoo bi nga xam si nit ñoom ñoo bokk ndey dook lépp ñu sëtu si Masamba Diop ñoom tam ñoo ñoo ñoo ñoo ànd ak moom conférence boobu ñu ànd ak moom ku naan sëñ Cheikh Boussa ak sëñ Jili Boussa ak ñooñu ñëpp ñoo ci aju ci loolu lañ loolu daal mooy programme conférence boobu lay def bu bët seeteet dañ jàng alxuraan bu noppee ñu teg ca ñu teg ca benn conférence loolu daal moom mooy li ci ëpp solo daal mooy alxuraan di ak xasaayit moom mooy conférence bi dëgg mooy mooy mooy màggal gi dëgg dëgg daal. ci wàllum coordination bi nan nan nga waajalee dëgg rek comme yaay coordinateur bi. waaw coordinateur bi moom mooy dafa si yéene dajale liggéey rek ñun ñun ñëpp fa fa ne am na section bu fa nekk boo xam ne am na fu mu yëngatu loolu lépp dajaloon nañ ci benn béréb fa si yéene bokk liggéeyandoo àndandoo teg ko ci yoon kenn ku ne xam nga li nga doon liggéey daanaka soññ bi sax du métti lool lool ndax kenn ku ne la ngay liggéey xam nga ko. ndax loo ko loo dund ñaar fukket at ren mooy ñaar fukki édition bi. Mm-hmm. ndax 98 la woon waaw 98 lañ ko defoon ndax 97 lañ ko sos. ñu màggal ko 98. ndax ba bi ñu ko doon sos mënu mënuñu am lu ñu ko mën a màggal ci sens. Mm-hmm. waaye nag dañ ko def di dajale suñu yëf mu ñëw mu bari lépp mu ngi ci bind nañ ko fii. mu ne ba dajale ba am lu ñu dajale ñu daal koy dajale daal ko fay def. 98 ñu ñu door koy màggal laaj bis ñu def ñu jox ñu bis ñu def 98 ñu door koy màggal kon nag nañ ko sose woon ci loolu la ñuy continuer rek ñooñu kan ko ne koo xam nga am nga ci expérience xam ku loolu du fi ñaar fukki mu xam nga ci expérience waaw kon ndax bi ñuy door ñun daanaka sët yi ñoo ci nekkoon di jox ñu léegi nag bañ demee ba ci kanam tool bi jàppale nañ ci ci ba mu toll noo xam ne si moom. mu daam moom xam naa dañuy gën di yokk xam-xam bi waaye moom tawarkal ñu bëri am nañ ci xam-xam xanaa di gën a soññi kon ni ko fa nga nekkoon daal ci kuréel bi nga gën a góorgóorlu ci la la dénk kenn ku am na lu ñu la dénk kon kon nga góorgóorlu ci loolu rek incha allah dem bi ci lakal naka laka lañ dem bi lan la war a doon dem bi sëñ Mbacke Abdourahmane war a waxtaanee hmm, man man bàyyiwaat ndax dama ko teelul dëgg-dëgg nii waaw sëñ Mbacke Abdourahmane bi mu waxtaane mooy murit li dugg ci yoon murit li dugg ci yoonu murit ca bokku ci ndax it muutu daaw gis nañ yoon li ci dugg bari na lool lool maanaam fan fan ña fay wote ca lii dokku woon ni Sëñ Tuubaa noonu la doon dunde noonu la wote woon it moo tax li ci dugg ca bokk ci moom la sëñ Mbàkke Abdourahmane di waxtaane loolu mooy loolu mooy thème bi waaw mais li dugg ci yoonu murid daal ak jàngal xale yi ba nga xam si ñu war a tegu ci lii la Sëñ Tuubaa rëddoon ñu tegu ca moom lay waxtaane incha allah jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikhouna Diop mi nga xam ne moom mooy euh, le coordinateur moom lañ doon àndal noonu su ko defee kon dañuy ànd ak sëriñ Abdou laxat Diop mi nga xam ne mooy euh, secrétaire général bi su ko defee sëriñ Abdou laxat en tant que yow yow yaay secrétaire général bi donc lu mat euh, kon téeméeri daayira lu topp yow ñëpp ñoom ñëpp euh, doon kenn ku ci nekk am na secrétaire am mais yow yaa jiite ñooñ ñëpp su ko defee ci wàllum. financement beeg liy jaar sa loxo yu mel noonu doxalin bi foofu dëgg-dëgg euh, maanaam daayira bi ci ci wàllum teg yeeg nak naka naka ngeen koy maanaam doxalinu teg yeeg yu mel noonu ci daayira bi ci biir daayira bi daal doxalinu biir daayira bi naka la. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu waa télé bi Touba Argentine ci di leen siyaare bu baax a baax xanaa ginnaaw loolu ñu xam ne ñun ñooy adjoint Fallou Diabaye mi nga xam ne moom mooy secrétaire général bi ñun ñoo topp ci moom man ak Serigne Djili. ñun dañ fee teewal Fallou Diomaye mi nga xam mooy euh, secrétaire général bi ñun ñu topp ci moom xam naa loolu ni ñu koy doxalee mooy lu ma téeméer dayra ak euh, fukk ak ñett ñoom suñ ñëwee da ngay dajale kenn ku ne da ngay dajale fa nga nekk soo ñëwee da nga fekk Fallou jabaay ak Abdou Ndam Diop muy trésorier bi ca mbaar ma Abdou Ndam Diop ak Fallou Diomaye ñoom ñoo di ca mbaar ma trésorier bi ku ñëw foofu nga yéen fekk ñoom nag ñoom ñoo koy ñoo koy dajale di ko di ko saytu kenn ku ñëw dem ngeen fekk fan daan toog incha allah ñun nag leen yor ñoo yor wàllu secrétaire ci biir sët yi sëti sëñ Massamba Diop yi nga xam ne ñoo sotoon ñoo sosoon daayira bi ñun ñoo yor seen i teg ak di ko dajale ak di bind lépp loo xam ne war naa génn euh, dem ci juge ci juge ci trésorier bi jëm ci mbooloo mi waaw lépp loo xam daal war naa génn rek incha lépp loo xam war naa génn rek ñun ñoo ñi xam ne ñoo koy bind di ko euh, jox ko ñan ko war a jox lépp loo xam ne am na ci daayira bi lu mu mën doon bala bala ko bala bala ko trosile financé ñun daan ko bind kenn ku ne ko bind sa carnet ba jox rosi ba fàllu jëmaay mi suñu njiit bind rosi bi jox ko ab mu dox ko financé lu ci wàllu daayira téeméer daayira ak fukk nag ñoom it kenn ku ne da ngay dajale dëkk ba nga nekk waaw da dajale dëkk ba soo ñëwee ci bis ba da nga toog ci mbaar ma fekk fa fàllu jëbaay ak ab ak ab ndaam jaw Euh, ñoom ñoo koy saytu képp ku ñëw da nga fekk fan daan nekk kenn ku ne da nga ñëw soo ñëwee da nga jébbale ñu arrêté la jox la sa tontu nga yóbbaale ak ca mbooloo mag daan liggéeyee loolu daal mooy liggéey bi nga xam des na fa liggéey foofu. waaw su fekkee ñun ci biir sët yi nag ci biir sët yi ñun ajuma bu euh, alxames bu ne rek am nañ réunion suñ jugee ziar ba suñ jugee ziar ba ba def euh, réunion de compte ba noppi daayira bi dana tëj lu mot weer su weeru bi jàlleen ñu ubbiwaat ko def chaque sodi bu nepp mboolem fu fu sëriñ Masamba bu ñu ne ci Touba daan la woo ñu def réunion di teg ak di waxtaan programme daayira bi ñun ci biir sëriñ noonu la def su fekkee nag yéen daayira yoo xam dañoo génn nag ñoom ñoom ñooy xool ni ñuy dajalee seen i daayira ba bés ba ñu indi ko waaye ñi nga xam ñoom ngànk waa daayira bi ci wàllu sët si moom chaque sodi bu ne rek am na réunion boo xam ne danañ ci waxtaan lu jëm ci wàllu daayira bi képp ku fa am teg nga joxe ko fa nga joxe ko ñu bindal la ko ba kere bis bay ñëw yeneen daayira yi nga xam ñoo ñoo ne bitim réew ndax fi ñu ne bitim tàmbalee ci Italie euh, am na ay daayira Espagne noonu Argentine noonu Brésil noonu Amérique noonu Cameroun noonu Gabon noonu Mali noonu da ba France ba Afrique Sud yëpp ay daayira nga waaye yenn ñoo nag ñoom ñooy dajaloo fa nekk Euh, jël ko su su su su demee ba si yaay bi su ñëw ñu jébale lañu indi ak mboolem euh, section yi ne Sénégal yëpp rek kenn kenn noonu ngay def su ñëwee jébale ko ci mbaam ca euh, Fallou Diabaye secrétaire général bi ak Abdou Ndam Diaw trésorier bi noonu daal mooy loo xam ne dees na ko dees na ko fa liggéey. ci wàllu jébale bi ren ñaata bi nag xam naa ne ñun ni ni muy ni muy doxee ñun suñ dajalee ba xam ne lépp yem na ñun ñoo yor programme mu màggal gi. dañuy màggal ba noppi suñu màggalee ba noppi ak mboolem loo xam daayira war na ko def ci dëkk ba moo xam daayira ba euh, sëñ Sam dana dig xam naa ginnaaw bu ko sosee defar benn kër gu mag bu mucc ayib goo xam ne ñoom sëñ Sam dana ci wax daayira bi moo ko fa defar ak benn kër goo xam ne kër toggukaay la ak meen mbaar ak yu demee noonu yëpp daayira financé na ko fa sëñ Sam dana ci dikkaat ci kanam loolu yëpp daayira moo koy saytu ak wàllu jëmmi màggal gi jëmmi togg yi nga xam ne ko togg kilifa yi fay ñëw ak publiquement penc mi fépp fu nit nekk daay dana togg togg goo xam ne daal ak si jow bis mu defee ba def lépp ba réglé ba compte bu noppi su nee xaaj bi fi nekk dañ ko daan jël eh, xool eh, dem jébalu xalifa bi fi nekk waaw lu ma saa def ci compte bi rek suñu defee suñu fere ba noppi dañ ko jël dem jébal ko ki fi nekkal xalifa bi ci eh, njiital Serigne Sam mi président bi jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Diop ci leeral bi am solo yooyu kon su ko defee ñuy ñëwaat ci ki nga xam ne mooy Serigne Sam Diop mi nga xam ne mooy euh, président bi euh, su ko defee mën nga ñu ñëwaat ci lenn ci ay euh, réalisation yoo xam ne daayira bi réaliser na ko su ko defee comme ni nga xam ne noonu la ko Serigne Abdou Lahad junjee su ko defee nga gën a ñëw ci yaatal gi waaw tookal waaw daayira bi comme noonu ko sëñ bi waxee rek daayira la boo xam ne daanaka ñun dañuy dajale bu yàlla dogalee nu dajale yépp ba mu ñëw lépp lu nuy fere ci wàllu dëkk bi yëpp euh, ci pénc meeg euh, jumaa jag ya aju ci yooyu yëpp daayira bi ñoom ñoo koy financé ci biir loolu itam ci liñ fa def mooy liñ fa njëkk def mooy ginnaaw buñ ko sosee 98 ba noppi euh, ñaana nañ sëñ Abdou Samad ci yàlla yàlla yokk leeram mu jox na fa kër gu mag koo xëy ne kër toggukaay lañ ko def bi biñ defaree kooku ba noppi defaat nañ geneen kër ca penku xam naa gars yi danañ ko indi ca image defal nañ fi ñaari bâtiment yu mag yoo xamante ni si eh, cinquante mètres carrés la kër gi ne nga xam ne mboolem déeri bi foofu mooy seen baas loolu itam déeri bi ñoo ko def euh, comme ni mu waxee itam bu yàlla dogalee nu def siyaar bi ba lépp àgg nu def suñ suñ comptabilité ba régler ba àggal mboolem li nga xam ni moo fi des lépp Euh, bun fa dañuy seet li nga xay ne moo moom mooy ki fi nekkal sëriñ bi euh, liggéey yi nga xam ne moom lay liggéeyal sëñ Massamba Diop li fi des noo ànd ak moom balaat ko ko ndax dañ fee nekk rek di matériel sëñ Massamba Diop boo xam ne lépp loo xam ne sëñ baa ngi koy def ci jëmale ko ci bis bi rek fas na yéene ànd ak moom ca loola. loolu daal lan moo lan fi jot dox loolu incha allah. à yooyu nga xam ne jot ngeen ko réaliser yi nga xam ne nekk na ci seen nekk na seen ay xalaat ngeen ko war koo réaliser te xaj na àggagu leen ci. yooyu yan la war a doon. waaw xam naa ci biir loolu xam nga ci biir kër googu itam euh, yàlla dogale lu man ñetti at ci ginnaaw def nañ fi beneen mbaar mbaar moo xam ne cinquante mètres carrés la loolu itam dem nanoo dem ba nit ñi daanaka taxul nu xaajati fa lool léegi itam loolu suñ xel nekk na ci jéem a yokkaat mbaar mi ndax cinquante mètres carrés la waaye dafa xaw a xat léegi itam suñ xel nekk na ci kanam daal jéem a yokkaat mbaar mi. ba ba ba nit ñi daal ñu baree bare bu lépp ñëpp mënut a dugg itam ñu ëpp ci mbooloo mi dana dugg loolu itam bokk na ci xalaat yi nga xamee ne daal nekk na fa ñaareel ba itam biir mbaar mi itam am nañ yéene bëgg faa jéem a taxawal benn tribune bu yaatu boo xamante ci kilifa yi nga xam ne ñoo ñoo ni fekk si bu ñëwee nu ma leen a jox seen place daal ci bañ a bokk ak ñoom fi ne loolu lépp naal bokk na ci yi nga xam ne ñu ngi ko xalaat ci kanam incha allah. Darou Sam di ko Touba suñ doon natt ci ay kilométrage ñaata lay topp. waaw xam naa Darou Sam mooy Kébémer naa boo xamee diggante Touba ak Kébémer xam naa damaa jëlut euh, kii bi ñaata la mais boo demee bu jub Kébémer huit kilomètres. quatre vingt quinze kilomètres léegi boo demee bu jub kilo euh, euh, Kébémer huit kilomètres ci ngay jàdd diggam ak télé bi six la def nañ ko rarant itam ba mu àgg. Hmm. ñu ngi sant lan moo fa am. loo xam ne lu fa war a am te amagu fa dafa manqué ci digg ci côté état beeg nangam-nangam. xam naa li ñu fa gën a yittewoo daal maay wàllug yoon wi xam nga ñu ngi sant nag Babacar njaay kër xaadim ndax yàlla dogal na rang-rang bi nga xëy ne mooy sii kilomètres yi moom moo ko def ci ci ci alali boppam loolu itam nu ngi koy sant bu baax a baax ndax yoonu suuf la woon wu naqari woo xamante ni si moom ci boppam moo financé loolu defar ko la ca war lépp léegi daal li fa gën a yittewoo daal mooy fexe ba ñuulalal na ko def nañ fa itam benn santé boo xam ne euh, hôpital boo xam ne post de sante boo xam ne daal am na yéene ay docteur mën caane ndax defar nañ ko lu mat ñaari at ci ginnaaw waaye boobu ba léegi daal taxagut noo am yenn docteur yu fa mën a nekk loolu daal yitti la ci dëkk ba waaw loolu daal moom lañ fa gën a yittiwoo ah, ak wàllu gën a mën a yaatal ndox mee courant bi lépp ci biir dëkk ba ah, loolu daal ci biir jotaay bi rek waaw hmm? ah, kon nag li ci mujj rek mooy sant di sant yàlla bu baax a baax di leen sant di sant góor sekk mi nga xam ne itam moo leen fi yebal ni ko yow Arouna Cissé ak Serigne Cheikh Samb nekk ar sant TV kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ci eh, dalal gi nga xam ne dalal ngeen ko ngir yàlla ak yonent bi jëmmi sëriñ Touba di ñaane itam liggéey bi nga xam ne ni ngi yéen a ngi koy liggéey yàlla defee leen ci ndam ci barkeb sëriñ Touba. di sàkku itam ngeen ñaananu yéen itam ci barab bii nga xam ne fekk ngeen fi nii muy barabu diine di barabu lislaam yéene ji nga xam ni moom lañ fi nekk di ko yëngu yàlla yeggaleel suñ yéene kon nag ñu ngi sant bu baax a baax jërë ngeen jëf ci sàkkallaahu xayran jërëjëf sëriñ Sam Diop moom sëñ Abdourahim Diop euh, moom la ñu àndaloon su ko defee kon incha allah rek euh, dañuy daal di dellu ci ki nga xam mooy sëriñ naa di coordonnateur bi ngir waajal jeexalandi rek Euh, incha allah ci biir jataay beet ñi ngi feek ak Serigne Djili Diop moom sëñ Thierno Diop moom tamit mi ngi assisté li nga xam moo di jataay bi euh, su ko defee kon sëñ Cheikhouna ngir jeexalante ak yow rek ba gan kàddu gu mujj ngay wax rek comme yow yaa bi ci wàllum soññee beeg yu mel noonu. soññee bu baax déere yi ak it amaa di leen xamalaat ni fas nañu def en tant que coordinateur benn bureau bu bees boo xam ne si nii dana toog fi Fallou yi nekk bu ko defee ñuy mën a coordonner liggéey bi. képp koo xam ne am nga problème ci liggéey bi wala ñu joxoon la poste ca nga am jafe-jafe foofu boo fa ñëwee incha allah dañ ko leeral foofu suba yàlla te di soññi di soññi taalibe yeeg euh, jànkat alxuraan yeeg ñëpp daal ñu gën góorgóorlu góor góorgóorlu ci njàng mi euh, te gën te daal di ñëw su baax baax léegi nag ci biir loolu sëñ bi doon wax ci mbir réalisation yi lu mel ni euh, bâtiment yooyu ñu def bâtiment yi du bâtiment yu simple parce que bâtiment yi booy xool bâtiment bu ci ne ñeenti néeg la ak salle ànd ak salle de bain te yëpp ay terrasse lañu yoo xam defar nañ ko nu war a doon mu ñetti ñetti bâtiment yoo xam ne ko war a mu def ci xaalis kenn xamul lu mu toll bu dee moom rek juróom fukki millions yi teg na waaw maanaam day tudd ba jàpp ne mbaarum seng la mbaar la moo xam ne ni daanaka mu mu dëru xudus mi lay li ci war lépp na nga ca xool juróom fukki millions dañu wax loolu wax sax mën na ko ëpp lool kon moom liggéey bi daal kon ñun daal fas yéene bokk ak yéen teel bi rek. waaw ginnaaw bu nuyoo waatee xanaa di soññi wàllu daayira yi rek fépp foo xam ne daayira mi ngi fa mu ne Sénégal wala bitim réew fu man di doon rek ñooy soññ ñu gën a waajal ziar bi gën ko mobiliser comme kenn kenn na nga ko ànd rek. ñoo fas yéene cee góor na nga ko daan defe incha allah soo ñëwee ca mbaam da fekk sëñ Fallou Jabaay ak sëriñ Abdou Ndam Diaw incha allah fekk fa daan jébale ñëpp ñu gën cee soññ seen i eh, membre incha allah di leen xamal ne eh, ku ko eh, ku ko teewee incha allah rëb ajjuma am na réunion générale bi nga xam ne mm, section yi nga xam ñu ngi ñu ngi ne biir Touba wala foo man nekk ci bëgg a west incha allah ajjuma am nañ benn réunion kër sëñ Abdourahim Diop Touba taw feex am na firi bu ñëw boo xam ne képp ku bëgg a moom incha allah soo fi ñëwee dañu fekk incha allah ñuy soññi taalibe yi ak euh, mboolem fu daayira rek rek incha allah ñu fas yéene waajal siyaar bi rek comme nam ko an defee. xam naa benn minute rek incha allah. Ah, mooy liñ ci kii rek mooy yëpp nag yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak yi nekk ci bitim réew yëpp yëpp yëpp rek. ñu leen di sant bu baax di leen bëral ak cant di ñaan itam ñu yegsi ci jàmm ak salaam loolu rek lañ doon jeexale ndax ginnaaw yàlla lépp luñ fa def rek yàlla ak teelu bi yee lu fa nekk yàlla ak seen jëfa kon nag ñu ngi leen di sant di leen bërël ak cant bu baax a baax di ñaan itam ñu àgg ci ci jàmm ak salaam ci barke Serigne Touba baax na jërëjëf. jërëjëf kon bis baa ngoog incha allah le 13 euh, la war a doon di yemook euh, samedi ji ñu jëm bu dellusee kon ñi ngi soññee njàngum alxuraan mi incha allahu taala. Euh, sëriñ bi mi ngi koy soññee bu baax a baax kon ci Daaru Saam la war a doon nekk ci boori Kébémer di gëm ak Touba toll ci quatre-vingt-quinze kilomètres di dëkkub sëriñ Massamba Diop Sam di jàmbaar joo xam ne ku taxawoon ak sëriñ Touba la. nga xam ne sax comme ni ko sëriñ bi waxee ba muy ànd ak sëriñ boobu yoonu murit taxawagul doonoon koo xam ne it ku sëriñ bi euh, cëraloon la nga macha allah bañ am wax yu rëy yoo xam ne sëriñ bi wax na ko ci ki nga xam ne mooy sëriñ ma sàmba Diop Sam ci jaayante goo xam ne sëriñ bi jaayante woon na ko ak moom kon ñi ngi sant bu baax a baax di dellu di ñaanal xalifaam sëriñ Abdourahim euh, Diop euh, suñu borom gën ko fee yàggal lool di ñaanal njaboot gi ak daayira bi nga xam ne it macha allah ñoo war a amal bis bi di bisub ziar boo xam ne incha allah la treize la war a doon ci Daaru Saam kon sëñ Saam Diop euh, moom sëñ Abdourahim Diop moom la ñu àndaloon ci jataay bi sëriñ Cheikhouna Diop sëriñ Abdoulahad Diop ak sëñ Jili Diop ak euh, sëriñ Abdourahman Lëy daairatu Mubaarak li xidmati ma Massamba Diop Saam ñoom ñoo war a amal liggéey bi incha allah kon seen mbokk Aroona Cissé Cheikh Sambu euh, di jaajëfal Gora Seck Touba Argentine TV. di jégalu ci kàddu yi lu ci jub nañ ko sant yàlla lu ci dëng nañ ñu ko jéggal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.